eda moom nu mu tëdd mbër. ah Dun xel dalal. ah. waaw ah. mais dina egg eh, la am de. non xel dalal kii doomu paas la yow. waaw. bilaay walaay. Mhm. day daw rek. day daw rek. tey moom moo ko am de. confirmation la. confirmation par force. mais mbooloo mu toog dun. yàlla ya rek yàlla ya rek xam nga doomu paas moom. day sëb. dëgg la bu jugee rek. mbooloo bi jug. paas moo mel noonu dañoo amul deuxième combat moo nee nii. deuxième combat la mu mel. douze borowu tiggee la jël. nga demal la douze borowu tiggee la jël. douze lépp a jeex. daay dee na la amul tiggee. xoolal ma lii. ak yàlla douze borowu tiggee la jël. ah. yaa walaay deuxième combat. deuxième combat ba pare day bëree rek daan amul toog foofu premier combat la ñu yóbbu dañuy bëree rek daan incha allah. dañuy bëree rek daan. stade bi na libre garaaw waaw ah. booy papa baari baari nag mu ngi dagg yaramam rek ñu ngi dal si kawam baari baari nga baari baari laa wax baari baari baari baari laa wax baari baari nekk bi am na fekkee grand yow booy grand yow bi ngeen di déglu baari baari rek ñu ñëw ngeen lan baari baari ngay wax de booy grand yow bi ñu ko tegal lu bari doole kii mooy dundu paas dundu paas waa kaw gi nañu waajal booy nañu waajal du ñu ñëw. mais gis naa Ada Fass di ko souhaité euh, ndam rek ndam rek naan ko Fass nga dëkk. waaw parce que Fass nga dëkk dërëbu Fass mooy daw instant bii. nu mu demee noonu. parce que alxuraan Fass yëpp benn la. dëgg la ñëpp ay benn parce que alxuraan ñëpp benn la. mais mais Ada kay Ada kay soutenir. waaw mais yoon la parce que Fass nga dëkk. dëgg la parce que alxuraan waa kaw gi nañu waajal. lamb jaa ngi noonu nga di ko lan kii kan la kii may kan yow. may esma bu dun. waay waay waay waay noo gisee état forme dun. suñu xel du daal rek. ah mais aigle ngeen am aigle. aigle aigle ñu a moom loolu sax yàgg tànn su woon ñu def lu ngeen def. non bàyyi la ngay yàlla aigle day naaw de tànn nañ ko may. dañ koy dóoraat mu daanu. mais mbooloo mu mbooloo mu tëb dun bu ndaw sax su jëlee di doon bër dañ koy topp ñun déret bi moo foot déret bi. ñun Fass rek. Ah. amul leneen. kenn la waaw nous sommes des Fassois. ñu passé Ndëng ñu passé Ñaam waaw ñu passé Ñaam. mais bu ko gisee vidéo Ada Fass bi di ko souhaité naan ko ndam rek. waaw Ada mooy capitaine. Ada mooy mooy capitaine mooy Ndakaaru Ada mooy Ndakaaru. Ada mooy Ndakaaru waaw Ada mooy Ndakaaru. boobu nag xam nga da ngay jàppale mais moom ak guy gi moo am moom ak guy gi moom tamit. guy gi guy guy gi sax day xaar. ñun ñun ñun ñun Fass la ñu ñëw Fass ñun Dakar la ñu ñëw Dakar. mais ku nekk ñuy wax Dakar moo ko moom Ada Fass naan nga Dakar ku nekk naan Dakar moo ko moom. Dakar moo ko moom. bañ bañ bëgg la ah ada bañ bañ bëgg la apa, ada la ara apa waay Dakaaru sel nañ dem topp xoolal ma ñii ñu ngi ah mu ngi noonu de làmb ji am làmb ji lu am dun bu faas xoolal ma saraxi xoolal ma kii lu muy def nii kii day sarax wala lu mu demee nii xaar ma dan sudah kadai. Dan sudah kadai. lai lai lai, Lama gini. Lama dia buana. Lama dia buana. Lama dia buana. Ya ilah ilah lah. Balon bakalai. Balon bakalai. Balon bakalai. Lah ilah ilah lah. Menginyau teman. Man kana ada di sana kau mah. Anda kana sana kau mah. Lah lai lai lai, Kalau membuat lo mudah mudun. Kalau membuat lo mudah mudun. Kalau membuat lo mudah mudun. Dumbu Fass Dumbu Fass a ngi nii ndemu départ laay lay la hee waaye eh. saraxe xale yi lañ ko xale la xale yi lañ ko war a jox xale yi lañ ko war a jox xale ko war a Zal waay nee ko Zal waay Zal a ngi seere de ci lambang ini Hei, lamb jot na. nekk nee na yéen a am problème yéen. yéen a am problème. yow gis nga booy bi nu muy bëri. réveil nag jàppoon réveil réveil heure bi daa joxe saa yi nii. réveil dañuy dañuy ñëw jël nañ moom ñu ngi si waat fii. mais lan moo topp mu mbër. waaw si nga baax ak yaru rek ak Baye Fall bi boole si nit ñi quoi man fas yaaree laa dëkk. fas yaaree ba fii bilaay wallaay. bilaay nee na laa loolee am seen relation. non baax rek ak yaru bari si sëñ Bamba. Ah. bëgg nit ñi quoi waaw ma dem xool ji ambiance bi. waaw ma dem ambiance bi. waaw ma dem seeti ji ambiance bi. dégg nga ma loolu. dégg nga ma loolu. mais du nag ay xale rek nga ko wër ah mën na ko nii su bu ànd yi ñoo lay siyaar lépp jàpp su doon niir waa ji ah tey lan nga si wax attaque ak xale muy bëre ji deuxième combat am. waaw ndam rek incha allah dama ñaan yàlla dama ko ndam rek moom booy bu baax la ko wax. ah te naka nag moo tax nga ñëw tey di ko su doon niir. parce que loolu lañ mën quoi ñu passé ñu def passé ñaar. daa mel ne déret bi day si teew doy. ay aja mbër. wala ma loolu. waaj a génn mais man loolu maa ngi gis maa ngi gis lu ne ma def yoon noonu ah waaw yow maa ngi gis maa ngi gis Tapha Gueye Tapha Gueye daa gis noonu du def noonu yow لا اله الا الله bas benn ñee ñëw na bas benn ñee que naa não é waaw waaw mu ngi noonu hey soo ma soo ma soo ma soo ma soo ma maa ngi daw dur yaram bi daa tàng de yaram bi daa mel ni yaram bi daa tàng daa mel ni waa mbër ñu ne tey moo mbër de waaw oh, ndeysaan wala ma xale yi wala ma xale yi wala ma xale yi xale yi xale yi yaram bi tàng nañ wala ma kii wala ma kii ah tey loolu ndeysaan laa ma ngi noonu déjà xale yi xale yi soo fi lañ juuroo xale yi soo fi lañ juuroo yow na maa ba yow yow na maa ba yow na maa ba waaw waaw la bëgg nii bala ma xale yi la nii ndeysaan eh kay kay kay kay kay la fii kenn wala kay ko ma ñëw ragal du bo de la yow ma la dox dégg loolu xale yee ko wax baral bu mbër laa ilaaha illallah xale yi nee nañ baal laa ilaaha illallah mbër maa ngi lay siyaar lépp jàmm sa di dun bu faas nga ñëw soutenir ko ñëw jox ko ay conseil tey lan nga siy wax waaw loolu soo dugaa baax faas sama dam lu gaaw seen ko maximum moom la ba laas mu jël lan dara bëgg ko yàqal ah moo am xale bu ndaw moom tamit eggal eggal nekk si yoon moom tamit mu nekk si yoon yow soo doon ko wax pour mu bëre lan nga lay gis conseil waaw xam nga bëre nga war rek mu la fay la entraîner yàlla bëgg na la yéen ñaan ngeen di defee contact booy bi am na lu nekk si moom wala amul lu nekk si moom lekk moom bëri na loolu loolu ah? ah, am nga si moom confiance bu baax a a baax ok jaajëf bëggee